yëkkati ñaar ñetti kaddu euh, jëppal ko askan bu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew mbokk yi suba mooy bésu dëgg suba mooy bésu fulla suba mooy bésu fayda moo tax ñuy sàkku ci mbokk yi suba fépp fu sénégalais mën ti nekk biir réew mi ak bitim réew na jël gànnaayam gànnaayam mooy drapeau national dem leen ci ambassade yi dem leen ci consulat yi allez montrer que le Sénégal a choisi d'être une démocratie mbokk yu nekk ci biir réew mi nag man dama leen di jox suma xalaat suma xalaat bu gàtt mooy fépp fu waay mënti nekk biir Sénégal na toog ci goxam ci département ci région organisez-vous à partir de vos organisez-vous à partir de vos départements organisez-vous à partir de vos régions ngeen mën a exercer seen droit constitutionnel mooy droit à la manifestation te bu leen fàtte seen gànnaay parce que président Macky Sall daf ñu bëgg a loo fu ñu dëkkul président Macky sal dafa bëgg a gëmloo euh, nit ñi ak mbokk yi nekk bitim réew que ñun waa Yewwi Askan Wi ay nitu fitna lañu te moom ak ñi mu àndal ñoom ñooy ñitu fitna parce que ñoom ñooy jéem a yee fitna ci biir réew mi moo tax ñu ngi sàkku ci mbokk yi fu ñu nekk seen biir département fu ñu nekk ci région yi nañu mobiliser wu nañu jël seen gànnaay di le drapeau national du Sénégal envahissez les sous-préfectures envahissez les préfectures envahissez les gouvernances et si Macky Sall considère que ñun naruñu manifester suba àjjuma na ko Macky Sall déggee noonu dinañ manifester samedi dinañ manifester dimanche dinañ manifester lundi dinañ manifester mardi dinañ manifester ba Macky Sall may ñu affaire parce que nag kenn nootu fi woon suñu ay maam kenn nootu fi woon suñu ay wóojur te kenn ñu fi noot nooteel kooku moom amul Sénégal démocratie la ñu def comme option constitution du Sénégal moo ñu may ñu mën a wane suñu naqar te Macky Sall mënul toog may ñu ñu manifester vendredi dernier kenn gisul lu ñaaw kenn déggul lu ñaaw tey mu taxaw foog ni mën na def lu ko neex ak di jalgati les textes et les lois en vigueur dans ce pays et penser que maintenant mën na utiliser son commandement territorial balaa may dee mu ne day wootee nappaate fii nappaate du fi jàll parce que ragal dëkku fi gis nañ nag lépp lu fi gars yi def indi ci arsenal policier laay waxal ak gendarme parce que militaire yi ñëwaguñu xamante nañu bu baax a baax nañ ko teg ci yoon te bu leen kenn def loo lu ngeen xam ne nii du seen liggéey bu leen nangu di protéger ay nervi yi bu leen nangu di escorter ak ay neex yi bu leen nangu di def lu ñu leen lu leen yoon santul lu leen yoon mayu ci seen sañ parce que ñun lu ñu tax a jóg dinañ ko xeex mooy démocratie ak ëllëgu Sénégal te kooku dinañ ko xeex quel que soit le prix à payer dinañ ko xeex te kooku àla yàlla xam ne incha allah dinañ ci am ndam parce que du ñu may à ces quatorze sénégalais bi fi ñàkkoon seen bakkan ci mois de mars deux mille vingt leen may ñu ngi doon ko rek seen ay mbokk ñu ngi ci dëkk bi seen xarit ñu ngi ci dëkk bi seen dëkkandoor ñu ngi ci dëkk bi ils ne sont pas morts en vain ñooñu mënuñu ñàkk seen bakkan muy nul dañu ñàkkoon seen bakkan ngir démocratie du ma dellu si waat ci lu ñu tax jóg parce que loolu ñëpp xam nañ ko président Macky Sall nekkul ci benn dëkk président Macky Sall ci benn yoon parce que tey soo ñu teree jël suñu photo tête de liste nationale teg ko suñu kaw ya yabel bu passé loolu soo taxawee tey taxaw nekk da ngay jël benn liste benn parti wu bi dañ koy valider beneen parti wu liste dañ koy invalider kooku amul fenn fuñ ko bind ci loi électorale tey liste bu ñu bëgg a invalider lu ñuy ñoom soi ñaaw ñaawlu ci liste boobu ba ne dañ koy invalider moom lu ñu bëggoon euh, euh, euh, utiliser comme argument pour invalider la liste de la du département de Dakar kon nag su ñu demee ba valider la liste du département de Dakar c'est parce que la loi électorale est très claire erreur matérielle dañ koy rectifier te mbokk yi ñu ngi sàkku ci yéen teggin na ngeen waxtaan ak mbokk yi ak dëkkandoor yi suba bu kenn fàtte gànnaayam le drapeau national du Sénégal génn leen ci mbedd bi te taxaw ngir démbawu Sénégal ak ngir ëllëgu Sénégal kon nag moom lañ leen bëggoon baaxee suba nag mooy bésu fulla mbokk yi bu leen ko fàtte bésu fayda bésu jom parce que troisième mandat dañ koy tere Sénégal te ku xeexul tey wallaay di nga sa baral ëllëg parce que troisième mandat ma koy biralaat fii ci vidéo dañ koy tere Sénégal quant à lu président Macky Sall nag lekkee tamit ci dëkk bi kooku incha allah su ngeen taxawee dina dakk jël ay doomu gor ñi mu génne leen ci réew mi exilé leen ñeneen ñi mu yàq seen këyit mënuñu bokk ci élection yi tey nag ñuy woote ay waxu di nekk ay rebelle dugg ci dëkk bi et ñu ngi wut kan moo leen fi indi foofu lay daane rebelle mooy ku dul respecter la loi il a qu'un rebelle dans ce pays C'est monsieur Macky Sall, partisan d'un clan, leader d'un groupe, un homme à la tête d'une coalition dénommée Ben Bokoyaka, chef de parti politique, et qui aujourd'hui décide de faire un troisième mandat par la force. Parce que lu muy def nii tey amul benn logique ci nit bu ànd ak xelam te nar a jeexal deuxième et dernier mandat te di dem kooku deewul jàmm kuy jéem a yee fitna kooku leneen lay dox leneen lay séntu moo tax ëllëg ci yar ak teggin ci fulla ak fayda na ñëpp taxaw wane seen naqar wane seen pas-pas ak wane seen pasteef mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na leen aar